boroomu góoram yéen doo nga koy def oustaz wéy la dinaa ñëwaat yéen di ko arrêté mbaa ma leen effectivement li nga ci wax moo ci am dañuy gis ne Sénégal bu njëkk dañ ko xamee woon même au niveau à l'échelle mondiale Sénégal bu ñu waxaan rek dañ naan Sénégal dëkku tolérance la ba tax da daan ñi nga xam ne ñoom ñooy touristes yeeg yëpp mais léegi Sénégal dafa viré jëm ci beneen tendance bi tuddee ko defante mhm. te booy xool ñaari champs yi nga xam ne bokkuñu bu ñu la xamee mu ngi mel ni tey xëcaa ñëpp xame woon ci ne ku tooñ daf lay jéggal ku ko nàngam ko nàngam te jéggal bu ñu koy wax mooy nga am possibilité fayu mën a fayu am moyen yoo fayoo mais nga bàyyi mu sedd nga dëgg bal bi ndax itam même autorisation sax suñu borom joxe na autorisation ku ñu tooñ mu fayu waaye nag dafa ne ah, bu ngeen jéggalee joxe na autorisation ku ñu tooñ nga fayu ndax ni mu waxee euh, hal jazaul ihsan illa al ihsan nee na y a-t-il pour le bien que le bien xam nga loolu dafa laajte ndax am na beneen fay bu ñuy fayee lu baax lu dul lu baax waaye itam wax na ci beneen ci beneen côté bi mu ne wa jazaau sayiatin sayiatun mislaha waaye nag mu ne euh, wala in sabartum xayrun lahum mu ne nag bu ngeen jéggalee fa man aafa waslaha fa ajruhu ala allah innahu la yuhibu zalimin mu ne ndax am na fay gu ñaaw lu dul lu ñaaw mu ne maanaam lu ñaaw lu ñaaw a koy fay waaye nag bu ngeen jéggalee moo ma gënal man yàlla te mooy ëpp fay ci yéen ñi tam maanaam jéggale am ngeen possibilité ngeen fayu ndax maa leen jox autorisation bi mais ngeen dëgg bal bi la grandeur d'une personne bu ñu koy natt duñ ko natt ci niveau de vie am wala train de vie am élevé nangam mais dañuy xool capacité de tolérance am nit ki ku la gën a ëpp capacité de tolérance ki nga xam ne mu la dàq muñ mu la dàq fair play moo la dund ak nit ñi ci masla kooku lañ jàpp ne c'est une grande personne mais pas grande en matière de taille wala en matière de finance wala wala yu demee noonu bu ñu waxee une grande personne mooy ki nga xam ne am na niveau de tolérance bu bu yéeg Sénégal nag dafa mel ni léegi même ñi woote sax dañuy woo wooweetuñ nit ñi jëmale leen ci ci tolérance mais dañuy woo nit ñi pour buux leen ñu dem ci defante ndax itam bu fekkee booy woo booy woo nit ñi da leen di wax ne leen ku la dóor fayul ku la màtt màtt ko yaa dafa mel ni yaa ngi bëgg a renverser tendance bi ñu doon dund Sénégal nga xam ne dañ la doon wax ne la ku la ji lu bon ji ko teraanga bu yàggee moom mi la daan wër di ji di ji di ji lu bon dina sukkandiku ci teraanga jooj ñu lay def ba mu mujjee ànd ak yow defante gi xale yi jigéen ñi jël nga yaakaar ne lu ko waral ñoom baal ñoom duñu baale moom voilà xale jigéen moom koo sa morom sa morom du la baal loolu lan la waaw du ñëpp nag certes mais am na ci ñi nga xam ne mënuñu mënuñu muñal seen moroom dara ndax euh, la majeure partie dañuy am li nga xam ne dañ la koy dencal dañuy xaar bés bu rafet jot ñu wax la ko mooy comme li nga wax sànq da di àndi def dara ñu ne la muñal euh, nëbbal nañ la ko mais day am jour bu ñu lay xaar ba nga wokku leen rek ba ñu mën a gal nekkoon ci yéen ci ñoom ci luñ la xamal waaye rawatina ci li nga xam ne xamaluñ la ko xam nga tey waxal lu nit lu bon wala sosal nit ci li nga xam ne xam nga ko sax dafa dafa dafa ëpp. c'est de l'hypocrisie waaye li nga xam ne xamoo ko nga sosaat dolli ci ndax tey léegi noonu la boo xooloo nit da ngay xool la nga xam ne xam nga ko ci moom ak li nga xam ne xamoo ko ci moom waaye boo ko waxee ci lu ñaaw mën na ko mën na ko vexé nga daal di jël loolu teg ci table ji te li ci gën a garaaw mooy bu ñu juboo ak yow day mel ni masuñ laa def dara masta xew bëgg di mas laa fekk blessé nañ la verbalement te xam nga violence verbale moo gën a garaaw violence physique nit mën nga ko def lu ko métti nga door ko wala dara mu bàyyi mu sedd mais nit mën nga ko wax li nga xam ne mën na tax àddunaam yàqu wala mën na tax saa yu xoolee rek dina am lum la lum la sa wax ji dafa am ci benn affaire bu mu sama xel mhm. nit a ngi toog di dëggal statut chaque jour nga naan waa kii nu mu bëggee statut c'est parce que nit vexé na ko benn jour ci loo xamante ni moom tax na elle veut pas se sentir mal en fait bëgg na wan ni kooku ni moom am na doole c'est pourquoi day dugal statut tout le temps mooy xale yi jigéen yi ngeen di gis à chaque fois ñuy jugal statut ñuy defaru di solo di puis parce que nit boobu mës na leen wax loo xamante ni lu leen metti la et pour montrer que ni ñoom c'est des grandes euh, euh c'est des femmes c'est vraiment euh, des personnes yoo xamante ni ñu gëm seen bopp lan il va ñu filmer seen bopp ak di defaru pour wanewu donc wax lu ñaaw nit xamoo fam koy toll nañ ko baax jigéen dafa tàmm loolu xale jigéen ñu ci bari la majeure partie je dis bien ñoom xam nañu dañu tàmm yàkkante ci seen biir dañu tàmm boo amee problème ak kenn mm-hmm. dem estati ko waxal ko lu ñaaw jéem a jaar ci kenn ni ko yow kii da ay vidéo ma ngi nii yu bon la publier ko mm-hmm. donc loolu lépp booy xool ci jigéen la ëppee ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax oustaz thème bi thème la boo xamante ni xale yu jigéen ñi nga laal xam ne xale yu jigéen ñi mais itam ak xale yu góor ñi sénégalais yi d'une manière d'une manière daf ci am góor ñi nga xam ne dañ leen commencé xale yu jigéen dañ leen commencé wàll ah ñoom itam ñu commencé di def ay statut di defante comme comme comme comme comme j'ai le dire man gërëgaar may ma góor bu ma état di defanteeg man mhm. man dama lay boole rek damay sama noon ak yooyu noonu la àdduna oh bi commencé yàqu sama noon nit ki boo créé say bopp ay ay noon da am noonu voilà li ma gëm mooy comme li ngay def nga taxaw naan sama soppe yi nekk barab sàngam nangam loolu moom mooy àdduna nit da ngay xëcc ay soppe wallaahi boo taxawoon tey ci télé bi war a animé nga naan sama noon yi nekk barab sàngam sama noon ay noon rek ngay am ay noon rek ngay am man man aw ma noon xaw ma sa waxi noon mais amoo noon nit ki yow yaa créé sa bopp ay ennemi boo bëggee jël ay barrière daf ko sa digganteeg nit boo ne man du ma def lii man nangam sama noon yi dañ may def lii dañ may def lee boo bu la nit messager boo yéexee toon sax nga ne ci sama noon yi la boo créé benn liste bi nga xam ne ay noonu nga fay collé ba mu jeex kii bëgguma wala nga dugal sa photo kenn kenn neewu la uh, nice na nga ne dañ ma bañ bëgguñu ma nga bëgg a def nit ñi ay noonu ku la wax ko gis na photo bi du ngeen bàyyi ku ngeen gis ni ko sa noonu la yéen mu leen bàyyi li yéen baax na jërëjëf oustaz merci d'être venu waxtaan bi am na solo lii moo ma neex ci 11 13. Mhm. moom mooy que dinañ kaf dinañ foo dinañ ree waaye ku ne xam na ni ca njëlbeen ba fa fin ba fa ñuy daanalee wax dëgg yàlla njëriñ rek ngeen ci jëlee di mhm. ngi kontaan encore une fois euh, teewaloon na fii mhm. euh, di la gërëm encore une fois ci liggéey bi ñuy liggéeyal 11 13. gis nañu ko sénégalais gis nañu ko euh, moom mii di jëmm ji lépp luy tournage lépp moom moo koy def moom moo may tourneel moo may monteel moo may defal lépp et tout lay gërëm encore une fois dama koy wax au nom de tous les sénégalais ñu ngi lay gërëm merci beaucoup. maa ngi lay delloo gërëm bu baax a baax di nuyu de passage sama yaay yi nekk Mbour sama ñoom yaay yëpp. Euh, rawatina sama benn maire bi nga xam ne dafa dafa sori ci man muy maire Nday Faye depuis zone Sonatel maa ngi koy nuyu di nuyu waa këram yëpp moom itam kuy jàngal njabootam euh, tolérance ak fair play la voilà loolu depuis ba ñuy tuut tànk daan fooyee këram man may ànd ak doomam Saliou Baye mu doon sama moroom doon sama confident et tout loolu la ñu mas a mas a mas a jàngal voilà moo tax ñooñ ñëpp ñu ngi leen di ziarat bu baax a baax di wax xale yi nañu roy ci ñooñu nga xam ne ñoom ñooy suñu yaay voilà euh, barki dem bi itam maa ngi dem sa dëkk muy muy Saint-Louis du eh, Sénégal dama la <laughs> am na wala dama la woo fekk rek euh, suñu appel dafa juyaloo. dama ne buy suñu appel dafa juyaloo muy muy muy dëkkub teraanga tamit di dëkkub fair play foofu tamit dëkkub tolérance. voilà nit ñi tamit nañu rooy ci waa Ndar roy ci waa Mbour. ayca ñu ngi ciy kontaan baax a air leen di ñun de ñun waa Ndar dañoo mën a toléré de ayca kontaan nañu merci beaucoup c'était votre émission l'émission qui dissipe vos soucis et qui vous permet de voyager dans d'autres univers mais également ah l'émission qui vous enseigne merci à toutes et tous merci Grégoire Abel merci à Aladji Bàcci man ñoom du début à la fin xeex xuloo mais bu jeexee jeex na man ak ñoom ay gars la kaa leen merci tonton cher maman Mané merci beaucoup et rendez-vous demain incha allah rabi quant à oustaz jaajëfati jaajëf